bi nee na defe na li mu wax noonu la mais Sénégal yëpp dañuy ne jërëjëfati président de la république son excellence monsieur Macky Sall almudun wal zawaya wal masajid la yakun lahu shukran même mboolem dëkk yi mboolem zawaya yi ñoom ñëpp dañuy ne président de la république wa shukran lak tamit kalaam tamit kalaam ne waykat bi nee na iza qaalat al-hasaani fasaddiquuhaa fa inna al-qawla maa qaala al-hasaani ne xalifa bi di nga wax si président de la république inna al-hasanaati yuzhibna sayyi'aat ñu baax ñam bëgg lu baax bëgg yàlla bëgg yeneen bi ñëpp ànd nañu wax président de la République jërëjëf. maamam nee na. dex. dafa yaatu. dafa yaatu. boo ñëwee ci tàkk bi. nga gis kenn mu ngi fóot. nga gis kenn mu ngi fóot. mu ngi sotti lu bon. mu ngi sotti lu bon. waaye ci wet. waaye ci wet bi. am na kuy naan. am na kuy naan. am na kuy sangu. am na kuy sangu. lu tax. aussi le CIAG président de la République ñëpp ñëpp nee nañ jërëjëf xalifa bi sëñ Babacar sëñ Mahamadou Mansour nee na su Mahamadou Habib ñëwee na ko jottali sa nuyoo nee na lam la waxoon démb nee na jërëjëf mu ngi koy déglu si kàddu xalifa bi Cheikh Oumar Moustapha mu ne majji axiran. wa majji awwalun. wa majji wa shamsu. wa shamsu. badda duha. badda duha. ka shamsi. ka shamsi. fi tafali. jërëjëf merci bien. Ceerno Makka.